chef de la division conception et évaluation du commandement de la formation de l'état-major général des armées. de euh, Ousmane Gom lieutenant-colonel di commandé base école euh, Thiès fii nii muy base bi nga xamante nii ci la ñuy former pilotes yi ak mécaniciens yi pilote avion mécanicien aussi bien yu armé comme yu civil yi waaw xam nga ci début année quatre-vingt Sénégal dafa commencé di former ay pilotes euh, bi ñu toogee ba quatre quatre ñu génne benn décret présidentiel pour créer école armée de l'air donc depuis 84 ba léegi dafa doon ñeent fukki at yoo xamante ni école bi mi ngi formé di génne ay pilote di génne ay technicien di génne ay ingénieur aussi bien sous sous-officier que officier donc bu ñu toogee ba ren ñeent fukki at ñuy célébrer jour bi jour bu historique la jour bu am importance pour ñun parce que daf ñuy permettre ñu taxaw xool li ñu daw ba fii li ñu def après itam mën a xool li ñuy xaar suñu kanam pour ñu gën a takku gën a pousse pour mën a continuer di former personnel bi fii nii ñu mën a occuper métier aéronautique yëpp mën a euh, nekk ci armée bi nekk feneen jàppale Sénégal. voilà fii comme ni ngeen ko gisee tey gis ngeen ñoo xamante nii fii lañ leen former def nañu trente ans retraité tey ñu ngi waat fii ñun itam ñu ngi continuer di former. tey ci li leen li ma leen limbal lu mat ay ñaar téeméeri nit ñi ngi fi dëkk fii ñu leen di former chaque année ñu ngi recruter rien que ren rek li ñu jot am am na 1500 yoo xamante nii dañu ñëw déposer seen dossier bëgg a nekk aviateur militaire pour dire que ñi ngi continuer di monter en puissance di gën di former ci métier aéronautique yëpp mu doon bilan boo xamante nii dañuy continuer gën a takku di ko def di profiter itam ci occasion bu mel di remercier ñi nga xamante ni ñoo ñoo ji affaire bi ñoom ñoo ko commencé nga xamante ni ñi ëpp lépp retraité na ñu leen di sargal tey aussi moo taxoon itam ñu jël camp bi lépp lu fi ay yoon ñu tuddee leen ñooñ noonu lépp lu fi hangar ñu tuddee leen ñooñ pour que ñun ndaw ñi ñu gën a xool ci lool gën a takku gën a puusa mais vraiment école la ñu koy ñaanal muy gën a dem ci kanam ci kanam rek école capacité d'accueil ñaata la toll. waaw actuellement ñi ngi capacité buy tourner autour de deux cent trois mais ak infrastructure yi ngeen gis ñuy tabax dañuy dem ba am capacité six cent ay stagiaires yoo xamante ni mën fi nekk. après nag ay six cent élèves boo ko amee itam di nga am le double maanaam ju nekk ñaar téeméer xaj na ci ñi xam ne dañuy jàngale dañu fi nekk di soutenir ah donc base bi nii day gën di màgg. màggaay boobu toll na ci ren ñu créé fi ñetti corps ci biir base bi dafa am école bi mais dafa am commandement buy soutien am na soutien commun am na fi aussi commandement boo xam ne soutien technique et logistique la am na fi à peu près fanweeri avion ak hélicoptère yu fi nekk nga xam ne loolu lépp dafa bëri et mu doon métier boo xamante ni la euh, c'est très pointu moo tax ñu gën na pousse gën a jàngle gën a xarañ pour mën a continuer di voler plus waaw depuis depuis deux mille vingt deux seulement la ñu commencé ubbi école bi à formation des civils actuellement on a une première promotion de civils euh, de cinquante quatre euh, au profit de la compagnie nationale Air Sénégal parmi les cinquante quatre il y a vingt quatre pilotes et trente techniciens qu'on est en train de former qui